sallallahu alayhi wa sallam conseil ab jiitu réew wala ab président mun ko biral ci kanamu nit ñi moo xam ci kaw min bari la moo xam ci conférence publique yi la moo xam ci YouTube wala TikTok Facebook foo xam ni mbooloo bu bëri luñ ciy bañ mooy dem ba wegeel nit ñi amoon ci jiitu réew daal di wàññi wala dugal ci xolu askan bi bañ bañ njiitum réew ba ay révolution juddu ci ak yu mel noonu nga xamante ni après lu ciy topp rek mooy ay deret yu ay deret yu tuur yoo xam am benn njëriñ comme loolu lu leer la léegi nag mu des ku ci tàbbi ndax képp ku ci tàbbi rek dañ naan kii la wala kii xaariji la loolu nag mooy njuumte yu bare bare bare ci shabaab yi dafa am benn règle laysa kullu man waqaa fi bidaati وقاتل البدعات عليه لكن كيف كتاب بيتي بدا رك مبتدع خوارج دي دوخاي اصول اكي برينسيپ اصول يوي كو دوخيول كين من واخدي اب خارجي ولا اب اخواني خوارج دا بوكس اصول التكفير بغير مكفر دي يفر لو نيت سي لو خامني كين دو سي يفر لو نيت مو خام يفر نيت سي بكار بو مك ولا صاح سي بكار بو ندم مون لا يفر صاح سي بكار التكفير بغير mu kaffir euh, ku naan sàngara dañ naan yéefar la ku njaaloo dañ naan yéefar la ku def bakkaar bu mag wala bakkaar bu doo sax mën na nga yéefar te loolu daa wuuteeg njàngale yonente bi sallallahu alayhi bu defee bakkaar te am tawxiid moom euh, bakkaaram boobu def na ko waaye nag du yéefar génnul ci diine lislaam waaw ñaareel mooy xawaar ji dañ ne imaan benn la lay tajazza dañ ne imaan ida dahaba baaduhu dahaba dañ ne lenn ci imaan bu demee rek leneen lépp dem na exemple nit ki bu naanee sàngara walla fen wala jëw lenn ci imaanam dem na léegi dañ ne lenn bu demee rek mooy lépp dem na léegi bu jëwee wala mu fen wala mu def benn bakkaar mooy mbooleemi imaanam dem na mooy julli mu doon def baaxatul koor yi doon def baaxatul sarax yi mu doon def baaxatul ñoom loolu ci seen principe la te loolu tamit dafa wuuteeg mën nañu ahlu sunna wal jamaa ahlu dañ ne nit ki bu defee bàkkaar faasiq la ci bàkkaar boobu waaye nag gëm na yàlla ci leneen li maanaam nit bu defee bàkkaar bàkkaar boobu faasiq la ci mais leneen li mu nga fa waaw julli yamuy julli mu nga fa koor yamuy koor mu nga fa yu baax yam daan def mu nga fa nekkul imaanam yëpp a dem seen yeneen i principe ñoom xawaar yi dañ ne ku dee ci bàkkaar bu mag safara ngay sax boo fa dee ci bàkkaar bu mag dañ ne safara ngay sax boo ko génn loolu seen principe la ko loolu wuuteeg ñàngal yonente bi ñàngal yonente bi mooy ku dee ci bakkaar bu mag te fekk deewoo ci bokkaale amoon nga tawhiid yaa ngi daan julli di woor daf yu mel noonu mais nga yóbbaale ay bàkkaar yu mag yow yaa ngi si coobare alaaxira yaa ngi ci suufu coobare borom bi yàlla bu ko neexee lakk la ci bàkkaar yooyu mais da lay génnee dugal la su ko neexee tamit nga ñëw mu jéggal la dugal la aljana direct léegi xawaar yi ci seen ñaareelu usul bi mooy yéefarloo nit ci loo xam ne duñ ci yéefarloo nit ci la ñu demee ba am ci beneen aslu mooy alxuruj al xukkaam bi sayf mooy génn ci président président bu leen neexul dañuy génn jël jaasi dañ ko fi jëlee loolu tamit bu wuuteeg ñàngale ahlu sunna loolu di bidaa léegi yii nii ku mu nekkul ci yow kenn mënu wax xaari jéega comme ki nga xam ni dafa tàbbi ci ñu tey conseil président public ko kenn wax di xaari la parce que usul yi yu mag yi nekkul ci moom nekkul ci moom moo tax Cheikh Ibn Ousaymin mosoon nañ taxé kenn ne xaari ji la Ibn Ousaymin woo ko laaj ko ci usul yi ndax usul dafa nekk ci yow mu ne déedéet mu ne comme naka ngeen ko mu mënee wax xaari comme nañu moytu ci yooyu di tasnif gaaw tasnif nit ñi mbir yoo xamante ni kenn du ci tamliix nit moo tax ak Cheikh Bakar Abou Zeyd bi ñu risaala bu am solo tuddee ko ak tasnif bayna zanni wal yaqin ñii di tasnif tasnif nit ñi kii mubtadi la kii xaariji la ci loo xam ne njottu la ak yaqin foog am ci yaqin leen bul demee njott Cheikh Abad bindoon beneen risaala tuddee ko rifqan ahli sunna bi ahli sunna ñeewantal gallawaay ñeewantal ahli sunna jëmale ci ahli sunna mu def ci ay njàngat yu am solo donc lii lañ ci bàyyi xel wallahu alam subhanahu wa sallam